jërë ngeen jëf mbokki wasaare lamb ñoo ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen jaajëfal bu baax baax di leen wax na tey ñoo ngi fii ci arène nationale bés bi nga xamante ni Fallou Ndiaye mooñ fa woo njaay Ndiaye production mbokk yi mu andi combat boo xamante ni kombaa bu neex la combat bu ñu doon yàgg a xaar combat bi dox ci diggante Ada Fass Tapha Mbeur moo kankang boo yëmbal Hercule armée bu ngéwél mbokk yi tey loolu la Fallou Ndiaye andi fii ci arène nationale mbokk yi nag du du ma ci taxaw benn yoon ndax combat bi dafa nekk combat nekk journée boo bu neex la dama leen di bàyyi ñu dox wéyal ànd ak yéen wan leen ambiance wan dugg si wan li nga xamante ne moo am ci stade bi ñu dem aadama. mbokk yi bi sifflé na Pape Ndoye 2 Papa doo jël na tànk ba Papa Siteu loo def nii Papa Siteu ana nga def nii est-ce que da nga ca génn daanu na oh Papa daan na Pape Ndoye da takk di ko tegal 16 mu sof ko poids ba Papa Siteu a ngi noonu Adama jëlee ma public ba xoolal ma daan na Pape Ndoye Ada Fass noonu lamb lépp tegtal la ñoo ngi tekki sengoor yi moo ngi jël ndaala teg ko ca bopp ba moom Ada Fass soo di wàcc cooy làmb ba tey ñoo la muy def ak seetu ba waa dafa am am na lu leen joxoñ mu tàllal ko seetu ba wuccax na ko ko ñetti yoon waaw waaw cey làmb teelal na Senghor Ada Fass a ngi noonu am na lu muy jot moom Ada Fass xoolal ma kii ak Senghor Ada Fass ngay dem di waaj a tuus. jaar naa la. delloo ziar. mais ci loolu. sant gërëm yàlla alhamdulilah. da la toog nga tekk lu waral lool. bés ma ko laaj. bés bi moo laaj den tekk. comprendre nga du ñëw fii instant yi pour def loo xamante ne war nañu épisode dañuy dal quoi parce que bés baa ko laaj. ak combat ko laaj quoi. nga am ci loo nga ñëw daje ki nga xamante ne nii mooy caatu caatu. ca amee bu ngéwél tey bés bi lan la laaj sa diggante yow ak moom lan la laaj parce que gis nañu ay spécial la ñii ñoo ngi naan demi finale la ak finale sa diggante yow ak moom tey bés bi lan la laaj xas-xas loo bàyyi na sa diggante yow ak moom. lu mu laaj ah lépp lu laamu di laaj rek lu laamu di laaj def nañu dem nañu suñu mbokk ñaanu entraîné nañ comme ni ñu war a entraîné instant fii lu fi des moom moo ñëw dëggal sa bopp wane fula ak fayda lu la yàlla may nga jël te mën naa koy ñaan dam te incha allah dama ko. waaw dina am xeex. sans dépenser adversaire bi daal. waaw sans dépenser adversaire bi. ci kanam. waaw. Njaasaan gi macha allah ñu gis kër ga waaw sant yàlla rek. waaw yàlla rek. tey nga ñëw ci làmb ji sa ñaari doom buñ ko mënee wax muy Ada Fass ak waaw ay xale yu war a doon mag lanu. waaw wane seen bopp. ku ëpp fulla ëpp fayda. waaw ah, yaay gañe. kenn ku nekk ci ñaar lu la lu mu la a ah, xam nan ko ku ci daan rek jàll. combat bi ah, danoo waroon a xaar ba ci kanam. waruñu woon a a daje waaye tey la daje. mais père ñaari xale di bëre. dawee bi toll nii ci ay xale yoo xamante ne nii mën naa ne ay xale lañu. naka nga gisee bii combat. waaw ah, danoo may seen bopp tur. boo liggéeyee. da ngay teel a am tur. teel na na am tur waaye tur woowu tamit. dafa am lu koy téye. lu koy maintenir mooy jom. am bëgg-bëgg. xam fi nga jëm. loolu la. kontaan nag. arbitre bi sifflé na. Less Djine dem na ci arlo ba dellu si waat. nee na. Less Djine Sarr. Sarr na ko léegi waaye Less dafa bañ. Less Djine Sarr. Less ngi reculer Zale ngay puus mu génn waaye dafa bañ di nga génn bu amul sens daan na ko waaw arbitre àtte na am na wala amul jël am na wala amul arbitre baa ngi xool ay siisam arbitre jox na victoire ki nga xamante ne mooy Zar maa la na naa. fay naa la bu baax. ci sant yàlla bu wër. mais gën nañ la gis depuis keroog. waaw depuis maa ngi woon ci affaire yu ma nekk rek moo tax ma ne xaaral ma ñëw tey. waaw naka nga bëree parce que ñëpp dañu ne woon euh, amoo avantage ci làmb ji. Marley euh, kii gi nekk ko la moom moom lépp mais nga ñëw bëreloo ko jàpp ko daan ko lan moo waral loolu. waaw mais ñun xam nañ li ñu capable xam nañ li nekk si ñun. amaana mënuñoo taxaw xam nga li ma la wax nii nekk ay góor yàlla li ñuy def yàlla def ñu am luñ ci mën bëgg a jàkkaarloo góor di ko tiital loolu yaakaar naa mënut a nekk moo tax bi gars di wax da ngeen di bàyyi ñu wax rek mais li nga war a def boo ñëwee si biir géew gi da def. Uh-huh. mais ñu gis la nga bëri am ci ndam. ñu gis kii di soq. keroog jëli naa ko mu ne dara boog ñoo ngi wax seen combat soq soq mu ne ñoo ngi wax seen combat non amateur yi ñoo wax soq marle ah. mais nee na nga nee na dem liggéeyuwaat ba ci kanam. waaw parce que dafa war a liggéeyuwaat ba ci kanam soq man ak moom bokkuñu sax jaarukaay si làmb comprendre nga man fi ma jaar soq jaaru fa bu fa jaaroon kenn du ko dégg champion la nag ndaanaan la nag comprendre nga mais na liggéeyaat ba ci kanam bu ñu làmb boole rek ñu bëre. mais mbër la ma doon bu amee ndam ku ko laaj mu na liggéeyaat xam nga boo xoolee mooy li ma waxoon sama diggante ak na ko réel na dama ne si li ma jógee moo tax ma bëre ak moom mais bu nekku woon si la ma jógee maa ngi si beneen côté man làmb heure bi waruñu woon séntu fi mais lu yàlla def nag jàmmuñu si dara comprendre nga voilà. mais fi mu toll nii lan moo nekk sa kanam. waaw sama kanam mooy ñu waaj rek li ki ñu làmb booleel ñu bëre ak moom. waaw mais yaa xam ci wuñu lenn daal. yaa xam ci woo dara fi mu toll. yaa xam ci wuma dara. da ngay toog teg sa sées di kokon. toog di xaar ndax li ma daloon du ma dalaat. Ah. xalaatu ma ko. kon maa ngi lay màgg na fi mu toll. waaw bu baax bu baax. kon daan naa jërëjëf. waaw fi mu toll nan ma ne la ñëpp ne da ngaa leer. Oh, non weeru ma ne. <laughs> am neex na. non dégg nga mooy yow ndam boobu fàtte nañ ko sax. sama dégg nga man ak Jordan laa soxla mu ngi nee taxaw. Jordan man Jordan man mu ngi nee taxaw. ñoom ñoo ngi lay lekk avance Jordan. moo yow Jordan bu ñu ma ko joxee bari Serigne Touba dama koy duma daan ko. baat li nga ñëw stade bi yëpp jóg fan ak yow nga daan moo tax nga bëgg a def Jordan. waaw daa tax ñuy wax Jordan bu ñu ma ko joxee bari Serigne Touba Mbacke ma daan maa ko mën maa ko dooge maa ko ëpp mbooloo maa ko ëpp jàppale man doomu séeréer bu ma jógee séeréer yëpp jóg. mais tey dafa am mbër naka ngeen ko dañ ko préparé maa ko doon may contact ak gars dafa instant bii nii dafa Daba ngi noonu waaw ànd ak waa Parcelles waaw da koy def. waaw noonu la demee. mais Dame Sène. maa ngi lay fay. ci loo nekk yaa ngi ci jàmm. waaw ça va sant yàlla. mais tey ñu gis ngay ànd Tapha Mbeur. mu nekk bés boo xamante ni nii mooy seen premier jour de grand combat naka ngeen ko waajale waaw comme ni lépp lu ñu yaakaar rek comme ni ñu waajale suñu champion rek comme champion ci équipe ni leen di waajal noonu lañ ko waajale di ñaan yàlla may ñu ndam mais combat bi tey la la laaj est-ce que dina am xeex lu mu laaj mu def ko préparé nañ ko ci bëri préparé nañ xeex mais ñu ci bàyyi ne xeex moo arrangé ki nga xamante ni mooy Ada Fass mooy moo arrangé Tapha Mbeur Ada Fass bëri bi moo ko arrangé lu ko arrangé rek na ko def l'essentiel mooy préparé nañ ko bëri préparé nañ ko ci xeex kontaan naa. jaajëf. gauche Bébé Balla moo ñu waaye dalul. Fils de Lirou Bébé Balla. eh Fils de Lirou ko jël daan na ko. Fils de naa la. maa lay ziar di jox sa wàccuwaay. mais li nga tuus neex na mais dara lépp rek bëgg ndam. ñëw indi ndam jël ndam war yóbbu ndam incha allah rabi. xam nga li lay may ndam. waa xam nañ ko te def nañ ko avant yaakaar naa ne entraînement yee gën a métti làmb. ñu gis combat bi yàggoon na lool ba tey bés bi jot nga ñëw gàttal sa calme ma fekk la nga toog di cons combat bi. waaw loolu yëpp tey ci làmb ji la rek làmb ju neex lu mu laaj. mais ñi ne ñi ne ñi tey Ada Fass bëre bi moo ko arrangé ñenn ñi peut-être ñu ne xeex bi moo la arrangé yow noo déggee loolu bi gars yi analysé loolu. waaw analyse yàgg na si làmb quoi mais loolu du ma si wax dara li may wax rek mooy man pare naa li ma war a pare xam naa sama bopp xam naa sama écurie li ñu def si man donc li si des yàlla laa koy bàyyi yàlla ma yàlla may ndam bu sedd guy si kàttanam ak mbaaxam. xam nga làmb ji fan la la mën a yóbbu. bu baax a baax moo dama fonk ko fonk ko fu fonk ko yam. bari sëñ Fallou. ñaanal yàlla baax na léegi. jaajëf aja ziar grand wi. non nuyu naa la. waaye fay naa la. Eh, ci waaye maa ngi nii sant yàlla. ma gis nga ànd nga jóg xale yëpp jóg topp sa gannaaw lan la. loolu xama rek. dafa dafa wax bawol bawol yu garaaw ni ñun dëkkuñu fi moo tax ñun man dama ko wan dëkkuma fi waaw kon kon damay dem jëli si sa àll ba ñëw andi. kon ñu fi ñëw nii àll ba lañ jógee. yaay ñëpp àll ba lañ jógee ndeysaan. waaw dina metti de. dafa metti moom metti na trop. naka nga waajalee. waaw tekk ak tey rek ak dal xam ne bis bee ko laaj. mais combat bi tey nekk ñaari ndaanaan diggante moo kankang boo yëmbal ku ne xam na ne ay bëreekat ngeen lamb est mën naa am xeex. ah waaw mun naa am xeex ndax làmb moom booy dem moom bul bàyyi dara waaw. fas yéene nga xeex tey. waaw lu ci laaj rek ñu def ko. lan ngay wax booy yëngal. non li ma koy wax bariwul si biir géew bi rek laa koy waxee. incha mu taxaw dëggal boppam. waaw mu taxaw dëggal boppam. ba ci kanam. incha allah. Jordan nuyu naa la. maa fay. ci loone waaw maa ngi ci kaw. nga ñëw ci stade bi lan ma woloon sa teewaay. sama rakk mooy bëre mooy armée. waaw waaw man ma ñëw. mais lan moo tax ñu lay gëj a gis. duñ la gis Jordan ci yu bëri Jordan kenn ko gis ci yu a bëri. waaw damaa nekkoon ci combat moo tax. te instant yii combat bi xam nga dafa am ay yàqu-yàqu quoi man a doomu daangu taxawoon na. te promoteur bi bon nee na mënatu ko quoi. moo waral ma ñëw pour leeral loolu quoi. kon fi mu toll nii euh, contrat doxatul sa digganteeg moo géet contrat doxatul sa digganteeg doomu daangu. waaw loolu moo ñoom ñoo ko wax quoi ñoo ko. mais que woo nañ la wax la ci lu leer. non en tout cas la ñu wax sama manager loolu lañ dégg ñëpp daal loolu lañ dégg daal nee nañ libéré nañu daal. mais mais mais mais bu weesoo bu weesoo loolu fi mu toll nii sa xel ci lu mu nekk parce que gis nañ combinaison yu ci bëri commencé naa tas. waaw Gris 2 yàgg na ma bë na bëgg a bëre ak man. doon ah daan naa faas ñetti magam kon bu ñëwee mën naa ko may sens. Franc yàgg na laaj amul combat boobu ba léegi gars yi nga amuñu. bu ñëwee naa ko ñu bëre incha allah. mais ñi nga may wax ñëpp ay xale yu saf ma laaj fi mu toll ay xale ma xool dama jaawale ak mag. damaa gis kii kii di Ibou Ndiaye léegi. nee na yow ak moom combat la. kii Ibou Ndiaye. Ibou Ndiaye la lamb daal mu ngi noonu en booy ma daal léegi nii bu ñu ñëwee may leen chance ñu bëre. Hmm. kontaan naa ci ñoo far boole lii boole nag Ibou Ndiaye lu waaye waxoon na ca dellu. barki Serigne Touba Mbacke Jordan dama ko bëgg. moom nee na pare na pour bëre ak yow. lu tax du bëre ak man. nee na pare na pour bëre ak yow. pare nga pour bëre ak man. ah wax la moom mu ngi lay dégg. pare na pour bëre ak man. moo ko wax pour bëre ak moom. combat bi amateur yi. Eh, eh, eh, waaw. nu ma lay neexal nu ma neexal. waaw kon neexal demal. non non mais. yéen da ngeen tolloo. demal dëgguma champion nga. moom mu neexal demal. waaw dëgguma champion nga. neexal ba jàll ma. yow ñeme nga maa jóg yow. kan mais kii champion nga. mais ndaanaan nga. champion nga yow a mayante mais Jordan pare na pour ñu Jordan pare na pour ñu bëre man ak moom. dina bëre keneen ku dul man nekk ma fi di ay Jean wala Paul. loolu moo a leer dina fay ko jox ma da nga sax xam naa xam naa Jordan. Jordan daanaka la champion la day dóor day xeex day bëre. te instant ñu ñoo mën a mayante suñu biir xaalis. gars yi dañ ko fee bàyyi kenn nangu koo jëg na ma jël non amoon naa combat na maag doomu dangu waaw taxaw na bañu bañu war a bëri mais promoteur bi moo jékki-jékki waxul lu leer moo tax ma ñëw tey loolu sama avance keneen ku ma lamb boole nag muy moom muy ñu ma wax léegi man damay liggéey bàyyi entraînement xale bu ndaw la arrêté ka voilà ñoom dox loolu ñoom Pape Sarr nañ dox loolu Jordan pare na pare naa combat bi dara daax ko danga may neexal de danga may feccal mais <laughs> waan Tibles doomu Mewane mbokk moo ñëwoon gannaaw Tibles dañ jaakaar lool. at na doomu mi naam Tibles plaqué ko da koy mbot daanu na Tibles daanu na doomu daan na doomu mi boobu bés bés dootu ko dax Baba Diaw mii bés moo xam bés. ndax moo am <laughs> doomi doomi bi la doomi Ndakaaru la ci dëkk bi la fii la juddoo fii la màggee fii la yaroo. Double Moteur mu war a bàyyeekoo Rebeuss ak li wër Rebeuss PLG mu war a bàyyeekoo Bargny Tëngéej Jalaaw Yeen Ngaparu Somone Guéréo ñëpp topp ci ginnaaw mais loolu bés drapeau Cheikh Ahmadou Tidiane Ba le futur maire de la Médina bii la bés boobu guerre la. Eh, kaay. safara si ngeen ragal loolu. safara safara safara li sëñ Ba ragal loolu. kaay waaw lu tax booy bëgg di kaay.

ban ban loolu ban ban. Balla Gaye 2 l'Espagnol. Big Pato ñëw na. Big Pato ñëw na. kii du combat dafa bëri wax. jox la wax eh kii bu ko bay bàyyi ma lekk ko. ma lekk ko. soxla na ko day xool ba ko bëgg a lekk. dafa ragal ko ah ñëw ci laaj nga dégg Balla Gaye 2 ay eh, wax ñu delloo ko. Sabu waaw dara yaa ngi gaaw ku nekk sa borom dafa nuyu naa maa ngi lay ziar. maa ngi sant bu baax. Quench double moteur. Quench double nga xam ne mi ngi doog am combat. mi ngi doog mool la. yàgg na ko mbaal. mën naa bëri te am na la yàqul boppam. te da fàttaliku biñ koy jàpp Papis Général mi koy daan ñëpp dañ ñëwoon da koy ndax daan ko. Double Moteur combat yi mbër yëpp ay faay la mais nag góorgóorlu ci combat bi nag mu teey xam ne am na mbër. Quench aussi na xam ne moom it am na combat parce que kee wax rëbës dañ koy ngembu te du bëgg am defet kon ñaari xale lañ doole dana feeñ xeex dana feeñ combat bi du yomb de kenn du ci may dara sa morom. door mu daan non non non accidentellement parce que ñoom ñaar duñu ay xeexkat duñu gisuma ci seen xeex lu dóor mu daanu. mais bëri laa di a gis parce que Quench moom day bëre waaw. mais nag doomu dàngu doomu dàngu du seeraan Quench muy ñëw ci noonu noo ko préparé dèjà mais bàyyi tooñ bàyyi paa beeg mbir. combat bi dox ci diggante Bouba yëmbal marin ak Karbala Songane Gueye Bouba moo ñu wan ginnaaw Karbala moom la ñu lool moo nekk Songane Gueye Bouba yëmbal marin Bouba ngi dox ci kaw Karbala Karbala a ngi la bataake bi taxaw bëre bul génn xeex nañu Bouba Karbala xale yi dañoo bëgg xeex Bouba Bouba a dox ci kaw Karbala door na ko gauche droite Karbala jël na ko Karbala teel a bàyyi oh Karbala daan na Bouba Karbala daan na Bouba dafa xeex ak moom mu daw pakete ko daw ak moom ma ngay joow Karbala ngay joow Karbala ngay joow xoolal ma xale ba xoolal ma kii eh, dooroo ko defati ca tribune ba la jógee dama wuyu alkaati ya laay eh, dooroo ko defati booy. Zakam nuyu naa la. waaw fay sant yàlla gu dul jeex. waaw sa teewaay tey ci sant. ñëw seetaat si ba pare jëf utaale làmb rek. Hmm. waaw. mais dama doon dégg sa diggante Mbañik ñu ko doon dox mais ma dégg mu ne yow yaa na doo bëgg stade Iba Mar man mii di wër si dëkk àll yi di bëri xam nga duma taamu fooy bëre waaye. Ah. loolu ay wax la rek. loolu man pare naa si mañi maa ngi si leneen. mais fi mu toll la lan moo nekk sa kanam parce que gis naa fa ay xale yoo xamante defe naa ne sa diggante ak war naa mën a neex. waaw looloo tax ma ñëw si stade bi ku daanu ku daanu yëpp pare daa pour bëri ak moom. diggante Ada Fass Tapha Mbeur. waaw. bu ñooñu. it ma booleel ma bëri saa moom da nga xaw a leer quoi dafa mel a leer dafa mel ni mooy. waaw temps yi ma may madame ma may toppatoo waaw kon naa naa jaajëf. moo war a bëreeg booy yëmbal moom mooy xale bi nga xamante ne bu jugee bawal ñëpp dañuy topp ci ginnaawam gis ngeen sarax si mu yor suukar la. gis nga joxe na joxe na ndeysaan joxe na joxe na joxe ma joxe. ma ngay joxe ndeysaan ma ngay joxe ma ngay joxe ma ngay joxe ndeysaan ma ngay joxe joxe na ko joxe na ko ndeysaan Mor tey bis bi lu mu laaj kaay Adama Mor Mor tey bis mu laaj ci kanam ci kanam mbooloo mi yëpp nga indi ci kanam ci kanam rek ñoo leer léegi incha allah si kanam si kanam lépp mën na am lépp mën na a ngoog Mor ndaanaan la ci làmb stade Iba Mar la mujjee bëre moo xeeru ngor petit production moo ko organisé woon gis nga waa yembal topp nañ ko gars yi nañ ko sama xarit la woon waaye dama bàyyi tey bisu lu mu laaj. yow du ma la bàyyi sama xarit nga. loolu na ko. voilà dal dal. ndam rek ndam rek lu mu laaj mu def ndam rek lañ bëgg. bu jëree xeex dañ la cay gisul benn yoon gisuñu boo yëmbal mu nekk ci ruqam lu waral loolu. dañ ma ko digal rek am ay kilifa ñu ma àndal ak dal te nekk ci moo tax rek ma ñëw nekk sama ruq. Mor mbooloo bi mu indi bu arbitre prix bu ne tegal nga teg doo ko teg de ci biir géew bi la yàggatul maa moom la kese ak arbitre. xeex lu mu laaj ndam rek incha allah lu mu laaj pare nañ. wala waa ngi nale mafia baa ngi nale ñoo ngi nale waaw kon bu ngéwël ak Hercule ndeysaan Hercule armée bu ngéwël ñoom ñaare nga noonu kii jam ñaajo la jóge kii parcelle la jóge ñoom ñaari xale yi ku ci nekk ndaanaan lañ ci làmb waaye boo xoolee armée bu ngéwël taxawaay bi corpulence bi nga xam ne ndaanaan la Hercule tamit kenn demul mu des ñaari xale yaa ngi noonu ku nekk ñu ngi kàbbar sa morom Ousseyn. bàyyi ji li combat bi dafa nekk combat bu neex ndax ñoom ñaar dañoo ñeme yantoo andi naa leen jàmmaarloo ñu xas-xasloo ñoom ñaar ku ci nekk ne armée bu ngéwél Hercule Habib baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ Habib di sifflé na armée bu ngéwél moo ñu wan ginnaaw wala boog moo féete à ndeyjoor mu nekk combat bu neex Armé bu Ngéwél Hercule ndaysaan ñoom ñaari xale yaa ngi noonu Hercule jiital tànk ndijoor Armé bu Ngéwél jiital tànk càmmoñ dinañ xeex ñoom ñaar dóor na Armé ngi dóor Hercule sóoraale sa tànk bi ndaysaan ñoom ñaar a ngi noonu na ferme gàddam ndax Armé bu Ngéwél lay dóor te Hercule amul garde bu baax na ferme gàddam galaay taalibe Bamba ay direct lay dóor kan loxo taay bi loxoom armé mooy door direct te Hercule day ibbi loxoom. war na ko daw na jëli ko daw na war na ko ndomba war na ko ndomba Hercule war na ko ndomba Hercule war na ko ndomba Hercule war na ko ndomba la def ndànk munu cee génn penalty la munu cee génn penalty la Hercule war na ko ndomba bu doon football ma ne penalty la Hercule war na ko ndomba lu mu koy def bàyyi ji loxo buddi wala da koy dóor lu mu koy def bàyyi ji en tout cas lu mën a xew rëcc dina ma ci bu rëccee bu ci armé rëccee bu ci armé rëccee xam ne ndaanaan ndeysaan déggal galaay e kadi mani Hercule na kàjj ci sébi bi mu toog ndeysaan lamba ko Hercule arme bu ngeen eh, arme wol ko bañ na Hercule arme bu ngeen kuy daanu lu mu nar laa ilaaha eh. la arme rëcc ardo rëcc na kii raté na penalty ba raté euh, bu dee penalty ba fan ci baar bi wala da naawal wala góor bi da koo jàpp góor bi da koo ah. ñaar Ousseyn penalty bi ma ne da naawal wala du koo ci baal bi war góor bi da koo jàpp déedéet bi da koo jàpp baa jiile Abou la ko def zëkk xamuñu naan jàpp zëkk loolu la moom baa ñoom ñaar a ngi noonu. lu mag doon def ba dee bu dëkkee ba arrangé ko moom Baye Djily euh, kii la ba kii kon Armé bu Ngéwél fi mu dafa mën a concentré wu ci làmb ji ndax làmb ji daf ko mën a yóbbu fu sori ndax boo jugee ne damaa jugee daara bàyyi lépp ñëw concentré wu ci làmb làmb dong mooy suma métier ba tax moo tax làmb ji tay mënul yomb arbitre bi àtte na ñoom ñaar. arbitre bi àtte na leen ñoom ñaar ñu ngi ci combat bi ñoom ñaar. ndeysaan ñoom ñaare ngi noonu arbitre bu ak Hercule arbitre bi sifflé waat na ñoom ñaari xale yaa ngi leewaatoo Hercule ngeen jàkkaarloo armé door na Hercule na ko la ma la waxoon attaque oh. oh. na dafa forcé parce que dafa yegg ca wet ga daanu na ko jàllale arbitre nee ko dama lay rey munu cee ñàkk abe bu ngewel daan na Hercule may ko mu ñëw ngewel la ndeysaan ñëwal ray jag jëng <laughs> waaw général nuyu naa fay naa lay ni tay ci ñëw ànd suma xarit suma doomu ndey sio technique ñu preneel ko lamb ji donte metti na booba léegi kenn gisuma mais nit ku ci nekk sa bés nga am dama xew la mu def ci lu rëy bàyyi itam yëpp ñëw suma kër kon jaar na bu xewlee man it lépp lu ma jàppoon ma bàyyi ko ñëw. keroog bi ngay jugee stade Diop Iba defet nga fa jugee bi ngay ñibbi yoon bi nan la ci yow ak guddi gi nga tëddee. waaw sant yàlla melul ci man dara lu dul sant ndax sant mooy tax a yokk te amaana ba xana gën a te bu ko suñ borom di jël du tàggu kenn ndam nag ak defet dafa nekk ci loxo suñ borom ñun mënuñu lu dul sabablu ku la mën a taxaw wax la luy xew suba boo ko ñemee nee li am solo def nañ lépp lu ñu waroon def ñëw yàlla suñ borom dogalee ko ni ko dogalee ñu ngi suñ bopp daal. promoteur yi ñu ngi lay contacter waat. waaw bëri na. sa diggante ak ñoom. bëri na mënoo ko ma cee wax. bëri na ñu may proposé mais maa ngi si sama daal te maa ngi fi pour lamb. moo mel ne am na ñoo xam ne jàpp nañ ne neexul na nooy neex nga. ma mais c'est normal mbër moom boo daanoo ku ne dina la tëgg ku ne dina wax ci yow mais c'est normal loolu mënuñu koo bañ ñun xam nañ liñ doon looloo li am solo. Hmm. jaayoo baay jëlee. maa lay fay. la. Fatima. Fatima. sa borom kër làmb nga ñëw ànd ak moom ci stade bi mu sàjj nga xeex ak dóor ko dóor yi bett loo wax. kontaan rek kontaan ci bés bi lool di sant di sant Fallou Ndiaye mi ko ko tuddee di ko ñaanal yàlla yàlla may ko réussite di ñaanal mbëri fi nekk yëpp nekk que le meilleur nga may wax ci sa jëkkër. Jo Jo ñëpp la. jo journaliste yi la jo mbër yi la aduna la jo moom ñun ñun ak ñëpp ñoo ko bokk nit ku baax la loolu laa wax si moom. nit ku baax ku yaru ku am yërmande ci doomu aadama yërëm jabaram bëgg leen lool. <laughs> awo yaay awo yaay awo yaay yaay suñu awo yaay suñu yaay awo yaay. maa ngi fi maa ngi fi waaw maa si jàmm. ñu tuddee drapeau ban yëg-yëg nga ca. ah di leen nuyu d'abord di leen ñaanal yàlla di ko ñaanal yàlla mooy mii zoo technique sama jëkkër maa ngi ñaanal bu baax ñu gàttal wax ji ndax mënuma wax presse waaw di leen ñaanal bu baax a baax. ñu lay delloo ziar bu baax a baax. bis ñëw nga takkoon ngemb tekki ko nekkaat ci biir làmb di jàmbale làmb ba Fallou Ndiaye tuddee la drapeau ban yëg-yëg nga ci am. yëg-yëg bi mu am lu kontaante rek di sant Fallou Ndiaye di ko gërëm di jëlaat bés bi di ko delloo. nit nekk ci mbir ba jóge ci nga ñëwaat woowaat ko mu ñëw nga delloo ko njugal tuddee ko drapeau kon Fallou Ndiaye aw ma lu dul ko sant di ko gërëm di gërëm aw buur këram moo toog sama côté ni ak soxna yi gis nga nañ ma daree mu nekk loo xamante ne lu rafet la lii moo lay wane ne mbër ak promoteur ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kenn mënul dem baay sa morom kon Fallou Ndiaye dama koy ñaanal bis bi yàlla na doon ay bësi bësi bës kontaan rek laa si am jaajëf Eh, Baye Fall waaw damay signer contrat tey. ma Jokal. mu weex mi mu mën a dóor mi mën a xeex. kuuru fi. tey kii kuur bi daa yàqu waaw xale boo gis am na retour. yàlla nañ ko fekkee jàmm rek. incha allah janvier la. nañ xam ne Sénégal Saalum ñëwaat na. indi lu bees bu ko raw ngeen ñu bu Baye Fall bu baax. ma ne bu ko raw bu soobee Serigne Touba incha allah. waaw bëggee waay. naxam. waaw kay. jàngoro yëpp dajaloo nga jël siti Saalum Saalum lan moo dama ko bëgg a faj. faj ko ah. kay. bëri jàngoro faj rek. bilaay nga faj Saalum Saalum soixante tout. boo jëloon avance incha allah ñett maay Balla Gaye numéro 2. xel dal xale ñun ay xale lañ ñun ñun bëgg dañ koy toll. billaahi. Saalum Saalum xeex wala bëre ndax moom nee na kuur Baay Faal bi ma nga woon fa mu nekkoon ba léegi. kooku yoratul kuuru Baay Faal. yoru ko kuuru taalibe la yor. bi ma koy wax Saalum Saalum maa doole bee paase gëmu ko woon mais bi yoon koy fooye. dinaa bëre moom cinq minutes ba mu sonal boppam daanu barki alxuraan bëri xale maa ko dàq billaahi maa ko dàq fit li ma capable nii xaaj bi waaw da ngaa laa gaynde barki sëñ baam mbokk yi boo ak Mor Kang Kang Mor Kang Kang ngeen jàkkaar lool boo yëmbal moo la woon ñoom ñaar taxawaay bi baax na de waaw ñoom ñaar taxawaay bi baax na mais boo xool ki nga xamante ni mooy moo kankang moo xaw a tuuti taxawaay kii di boo yëmbal waaye loo ci mën a dégg daal mooy bàyyi jili ñaari ndaanaan la ñu boole bu combat bi yàggee nga gis bëre bu neex te bëre dina fi feeñ ci ñoom ñaar. ci géew bi Mor kankang daa bëgg a bëreeg moom ci digg géew bi. Ndeysaan boo yëmbal def na lu garaaw waay def na loo xamante ni loolu la mbër war a def ci biir géew ndax am na geste bu mu def mbër bu laal suuf noonu la ko war a def. geste boobu di ngeen ko xool ndeysaan ñu ngi noonu reculé na avertissement Boy Yeumbeul arbitre bi sifflé waat na ndeysaan arbitre bi sifflé na ndeysaan moo Kan Kan Boy Yeumbeul ñoo ngay xoolante ñoom ñaar cong amagul jàppanteeguñu dóoranteeguñu moo Kan Kan Boy Yeumbeul moo kankan wàcc na ba tolloog moom mu ngay bëre moo kankan boo yëmbal dañuy daje ñoom ñaar ndax boo yëmbal ni mu sampee tànk bi boo ko xoolee xam ni daa bëgg a dem ndeysaan moor kankan boo ko gisee moo it nga xam ne attaquant la gis nga jëli na ko da koy daan daan na ko daan na ko moor kankan daan boo yëmbal moor dëgg moor rëjëx rëjëx moor mbëndax mbëndax moor rum pitam dëgg ndax Mor Kankang a ngi noonu ndeysaan ñii ñoo indi Mor Kankang ñii ñoo indi Mor Kankang ñii ñoo indi Mor Kankang xawal ma supporteurs yi Mor Kang Kang yi mënatuñoo téye seen bopp. Mor dellu sul ma ci façon bëre bi nga bëre. waaw kii kii. dama dama ne ko maa la dàq bëre fii laa ko jaay barke Serigne Fallou. def na prix moom moo maa ko mën barke Serigne ku la ragal di reculer maa ko mën fop billaay walaay. 11 combats 11 victoire foo jëm. maa ko mën. foo jëm foo jëm foo jëm foo jëm. waaw fi ma jëm xam nañ ko. waaw. foo jëm waaw fi ma jëm xam nañ ko. foo jëm lii ma fi ma jëm xam nañ ko. waaw fi ma jëm xam nañu ko. ndeysaan Mor waaye man moom foo dem dinaa la loqati ndax xam naa ne man ngay daw. Assane ni nga def tey ci zone macha allah da rafet na. lii yow laa ko tuddee yow. yëpp tuddee naa ko Thiely. yaa ko moom jëlee. noo gisee stade bi arène nationale. waaw dama kontaan. xam nga lamb da koy topp. lamb da nga koy tëgg amateur yi bëgg kontaan. félicité Fallou comprendre nga. ñaanal ko mu jikko làmb nii la rek nañ liggéey bàyyi wax ji senegal yi kontaan tey jii képp kuy sénégalais bëgg nga. ma gis ni nga def stade Iba Mar def ko fii mu mel ni daal yéen ñaar bi toll yi da koy def de ñaari njaayeen yi. waaw dañoo dañoo xam làmb nag ba pare dañ ko bëgg te làmb da koy jox gëdd di nangoo fere xool li amateur yi soxla nga andi ko teg combat neex Iba Mar lañ fa defoon fàtte nañ ko instant yi leneen la ñuy moo tax nga dox combat bu rëy Youssou Ndour ak Thiatou Yoff Assane Assane Assane. waaw bu mar dee ci kàttanu yàlla ba ma walla bilan combat yi yéemu si àdduna yàlla na yàlla lé sootal lépp ba mar di nga xool Youssou Ndour Thiatou Yoff du dara baal ba mar di rek. xeeru ngor koña de. déggoo li ma la wax bu mar dee di gis lu doy waar xeeru ngor koña de moom cinquième position lay ñëw. maa la la wax li bilaay lu doy waar nga fa. moom Moussa wax teg naa ci ko gis. incha allah. <laughs> jaajëf Assane suñu Fallou siyaar na. dellu siyaar bu wér. nga yaakaar di nga def arène nationale bi ni yaa ko lay. waaw la innovation làmb lii la di xaare tey it yaakaar naa lépp euh, yéen la rek ndax tey su mënee mel nii presse bi ñoo ci jàpp kon dañuy sant presse bi yëpp di sant axlu làmb yëpp di gërëm ñëpp di wax ne nañ mbégte ci ñëpp kontaan nañ bu baax ci ñëpp vraiment suñu xool sedd na suñu xool fees na sant sénégalais yëpp sant ñëpp ak lamb surtout diaspora bi ñëpp bàyyi ñu kenn ñu ngi sant ñëpp. prochaine journée Ndiaye production kañ la. le 5 décembre si dafa passé ci Pa Abdou Fall buñ paree nag ñu doog a wax ci Ndiaye production <laughs> incha allah. maa ko xam. ndeysaan déggal nga loolu. leen wax yi. bàyyi jiili bëgg na la. lépp jàmm. waaw ñu ngi nii di waxtaan rek ñun ñoom namm lamb bëgg combat. moo ñu taxaw amaguma combat de wax dëgg yàlla man lamb. mbër yi nga xamante ne ñoom laa war a bëre rek ndax man moom booy buñ fi desee ma xaar wax dëgg yàlla manuma daan booy yëpp. ñaar ñii di bëre grand combat ñaar ñii di bëre buñ paree nan xooli seen yoon ma xooli sama yoon. fan nga jëm kan pour ñi lay seetaat mën a xam. mbër yi ma war a may chance ñoom ma war may chance. ñan ñoo lay may chance. ñu may may chance. man boo boo bëggee dégg-dégg mooy mbër yi nga xam ne dañ ne dañoo am doole du ma fi ne rek di tudd. amuñu tur mbër mais caatu ngewel ñi mu war a bëreel ñëpp xam nañ ko mënumaa jeexal sama morom dama daan ba tas léegi nag jot na pour gars yi may ma chance ma wane suma bopp tamit. Mor Dia. jaajële. yaar naa la. sant alhamdulilah. waaw maa ngi sant bu baax. bi nga ñëwee arène nationale ñàkk ba léegi gisaatuñu la fan nga nekk. waaw waaw maa ngi suñu kër rek maa ngi si li ma nekkoon rek di maintien quoi. ñu ngi lay contact. waaw waaw am na ñu ñuy waxal quoi. waaw. lan lay wax. non ah, bon nañ xaar rek. ci non nañ xaar nañ xaar nañ xaar incha maa ngi xaar daal maa ngi déglu bu sottee rek alhamdulilah. Tapha Gueye 2 kay Tapha Gueye 2 Tapha booy yi ku riiri rek la may ma saas xanaa yow da nga yor saas booy. dañoo ragal béykat bi wax naa ko léegi nee naa ko booy dañuy taxaw ci internet yi ma laaj taxaw ci internet yi ma laaj su ma ñëwee si stade bi ñu mel ni ñoom ñoom ñoo tax ma ñëw nañ ñëw dëgg naa la ñu may laaj yëpp. dëkk na la léegi. kuy safara. booy bi la doon dëkk sumeeku yaramu neen. booy géejawaay. waaye waaye safara ndox ndox day mën ndox du morom man ndox laa dama rawan ndox. di gërëm waa diaspora bi. barke sëñ Bamba booy. waruñ toog internet bi ni mu mel. daago nag daa daw. daw daa daw Laurent. Laurent Laurent lu ma ko dee. premier ko dee. liis la ñu wax liis. pas ah, Laurent man bàyyam liis la ñu wax liis. liis sax laaj ma woon na ko du ma la. daf ma laaj ma ne ko ragaluma la ñëw barke sëñ Bamba. ragaluma loolu Moussa Faye Gueye di gërëm waa diaspora yëpp tontoo boo ko tuddee ñëpp sama ko Bathie Seras taxaw na. Bathie Seras. dëgg la. diaspora bi ñoom Allé. réew maa ngi toj. Allé. sant yàlla bu baax. naa sant bu baax. waaye maa ngi nii rek nekk samay waaw. di wax na Liss Ndiago ñëw ñu bëre dugg naa jaama gën damm fa loxo tànk fa bëgg a tànk liis rek nga yaakaar ne moom nga bàmba bu ma jëlee ma damm tànk bi bu ma dem dammul tànk bi du ma ko bàyyi du ma ko moy maa ngi ñoom fii ba géej gi referment waa jaama gën pànk ci géew may ma <laughs> maa la xam mbër ziar naa xolu yàgg ziar na nga champion maa ngi am jaam bu baax maa ngi jaam bu baax baax baax pare wala pare waaw ñu ngi pare di toog di xaar rek waaw ñu ngi xaar combat non combat ainsi ñuy contacter quoi mais AJ mënaguñu wax quoi dañuy toog xaar rek. moo wax ki la wax. waa ñu ngi des. ñoo lay contacter benn ñaar ñett wala ñeent. ay ñaari promoteur ba ñett quoi. mais ñaari personnes yi ñu oo wax nañu Ziza quoi. Ziza waaw. waaw. waaye dafa waaw mu ngi si nag. mais nag noonu la moom bu paree pour ñu bëre rek. man pare naa quoi ndax lamba ji du ñu xaar quoi ay xale lañ ndax an moo toog bëree ko rek da ngay tardé quoi. waaw ñu ngi xaar. mbër. ziar naa la. maa ngi jàmm bu baax bu doomu yoo moom daa bëri doom. yoo moo ëpp doom ci doomu yoo doomu kii mu ngi nii. sama yaay kañ ngay le 18 décembre incha allah Modou Baye Fall. bu bëree grand combat. kii gën. Sidi Diamb gën maa ngi bëri spécial bi maa Modou amul ragal sama yaay da nee na baay fa sama yaay ngi tànk bi la téye waxal ak moom kiya sama yaay kiya ngi moo téye tànk bi barki Serigne Bamba kiya man lan laa bëgg xam amateur nga wala supporter nga wala yow lan la man lépp laa damay bu baax sax dama lay gis danga may gis parce que dama bokk ci làmb am ay xaritu mbër am ay doomu mbër moo tax kuy bëre ma ñëw parce que dimanche ba dimanche ay am jot dimanche ma deful dara damay ñëw seetaan si làmb. ñaata doomu mbër na bari na làmb yëpp may seen oh, ji ñëpp may yaay mbër yëpp. Ah, mbër yi kii yooyu yëpp kii yaay. kii mooy buus yi roxi jàmm ak gën et tout mbër yëpp maay seen yaay. non non non di tout dañ may dooleel sax mu ñëwee stade sax ñu naan man doo dugg fii doo jaar fii rek mbër yee jug dooleel ma damay dugg par force. maa ngi delloo ja <laughs> li muy defal mbër Yoff autorité du ñu ko defal dëgg moo neex yàlla man maa doomu Yoff li mu ñuy defal autorité du ñu ko defal moo ñuy jëlal carte defaral ñuy di sa jëndal ñuy biyee te du autorité kon autorité nañ ñu jàppale kii yaa jaaraama kii yaa ñu lay gërëm bu baax. la ngeen am lu xonq Ada Fass nee na supporter jeex na nee na dama koy rendi Ada a ngi noonu di daw ma ngay dem gauche dem droite ndeysaan ndeysaan ah ndeysaan ma nga noonu Ada Fass a ngi noonu ndeysaan ñoom ñaar ku ci nekk ci ndam nga jóge muy Ada Fass muy Tapha Mbeur ñoom ñaar fi mu toll nii ñu ngi la war a laale la ñu doon wax ñoom ñaar ñëpp jeex nañ la ngeen waroon wax yëpp wax ngeen Ada wax na Tapha wax na fi mu toll ni wax tuxu na wax moom ak gaaw tuxu wax bu ñaari mbër yi nekk ci digg géew bi rek wax tuxu wax moom tuxal ko ak a yomb bi tax ya naaw nañ dañuy ñibbi faas wala dañuy des ci stade ba bi ngay naaw ma ngay naaw bi tax ngay naaw naaw na bi ba naaw na ndaysaan ndeysaan buur mooy fay buur mooy fay baay ndeysaan ñoom ñaar a ngi noonu ndeysaan ñoom ñaar a ngi noonu wallaay wallaay làmb gi ndeysaan xoolal ma ñu yor mystique yi Ada Fass yi bi bëri na ci làmb ji mystique yi bëri na mystique bi bari na ñoom ñaari xale yi danañ xam am na importance am déet lu mën a xew mooy mystique bi bari na ndaysaan Ada Fass Tapha Mbeur ndaysaan Ada ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan aada waaw ba tey aada mbër la tafa mbër mbër la ñoom ñaar Ousseynou noo gisee ñaari xale yi. bàyyi ji ñaari xale ku ci nekk def ko li nga waroon def mais damaa gis tey sérieux ci ki nga xamante ne ni mooy tafa mbër tafa daan nañu ànd fukk de jeunesse ci daw di yëg république bi mais tey dama gis mu ñëw concentré wu tuus li mu war a tuus dem toog ci cumbukaayam toog di xaar ki nga xamante ne mooy Ada Fass Ada Fass nag tey. waa Fass waa Colobane ñëpp ànd nañoo moom gunge si ko tey nag du ne stade bi ba mu fees waaye dama ne ko na teey na respecté ki nga xamante ni mooy Tapha Mbeur ndax Tapha Mbeur ndaanaan la dafa mën a bëre te xale la boo xam ne dafa ne ci yoon def na boo xoolee combat mi day xeex day bëre moo tax ñu ci bari dañ ne bëre bi Ada Fass la arrangé Tapha Mbeur xeex bi moo ko arrangé waaye damaa bëgg mu bàyyi bëre lay jeexee bàyyi jili ci bëre lay jeexee ndeysaan Ousseyn li wolof naan wuro wa dem na këng waxi mag dem dantaali dàgg war na mbaam lu waay doon jaay leen mu lamb Tapha am na ñaari avertissement Tapha ñaari avertissement arbitre bi laaj na ay siisam laaj na Ada Fass nee na pare na laaj na Tapha Mbeur arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche 31 octobre 2021 et arène nationale Ndiaye ñaari xale yaa ngi noonu Ada Fass jàkkaarloo dafa am mbër moo la woon ginnaaw di lootoo lootoo bu tal lootoo bu tey lootoo bu diib lootoo bu yambare ñaari xale yi waaye du ñu ca mujj ñoom ñaari xale yi. du ñu ca mujj bàyyi ji lii bu ñu jàppantee nga xam ne ay xale lañ te ndaanaan lañ waaye kii di Ada Fass booy xool dafa bëgg a xeex waaye gëmul xeex bi kii di Tapha Mbeur nag na toog ci ay tànkam toog moom dafa mel ni dafa libéré Ada Fass combat bi bàyyi ji lii. ñoom ñaare ndeysaan Tapha Mbeur jiital tànk ndi joor Ada Fass jiital tànk ndi joor ñoom ñaar ñu war xeex bu ñu xeexee mu neex bu ñu bëree mu neex ku ci nekk am na loo xamante ni moo la ci combat bi kii di Ada Fass jege Tapha Mbeur balaa ngay xeex nga xam ki ngay jàppanteel Tapha Mbeur xeex arrangé na ko xeex jàpp Ada Fass ñoom ñaar ñëpp ay mbërëntaan lañ Ada Fass macha allah wet gi neex na day bëree wet day bëree tànk Tapha Mbeur macha allah moom day bëre wet day bëre tànk waaye ñoom ñaar xam naa bu ñu wuree ci bëre di nga gis bëre bu neex ndax ñoom ñaar ñëpp ñaari xale lañ Ada Fass jàkkaarloog yéen méngoo ngemb lu weex li takk ay dàkkal ngaam ndaysaan ma nga takk benn téere ci bopp bi dafa mbër moo leen woon ginnaaw langoo benn sengoor bu xonq takk ay téere ci loxo ya bopp baa nga weex tàll ak saafara ñoom ñaari xale yi daal Ousseynou bu doon may Ada Fass du ma maye tànk du ma maye wet ña Ada Fass doon na Tapha Mbeur dina ko daan daan na ko Ada jàpp Ada Fass daan na Tapha Mbeur Ada Fass daan na Tapha Mbeur oh dafa mbër daanu na jël bu ko bett waay eh Ada Fass eh doomu Fass ba yëngu na eh Ada Fass waaye Adama xoolal ma lii. jaa ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare lamb noonu la demee woon dox ci diggante Ada Fass ak Tapha Mbeur ñoom ñaari xale yi bëre nañ Ada Fass daan na Tapha Mbeur jël bu amul benn werante. ñoom ñaar ñëpp ay ndaanaan lañ Tapha Mbeur def na li mu waroon def bëri na ak xale bi xale bi yegg na ko fu sori daan ko loolu yëpp dinañ ci waxtaan ci jàngat làmb ji. Ada beneen xale ju juddaat na jóge Fass ñëw ci làmb commencé marqué empreinte am ci làmb gis nañ mystique bi bari na gis nañ fulaal gi mu fulaal làmb ji bëri na waaye en tout cas daal làmb ngi noonu ñaari ndamay dugg waaye benn ndamay génn ndam bi génn tey Ada Fass yóbbu na ko Tapha Mbeur làmb noonu la mbokk yi di jox dig daje.